du ma def lu dul ñëw ci bis bi. dëgg la waay. parce Ba mi fi nekk ministre des sports bi sportif yëpp dañ ci gis seen bopp. bu bu buggee ba mu ñëwee dafa gis nañ nu mu taxawee mbër yi uti ñaare national ba pare bépp sportif yaa ngi gis sa bopp ci ministère am ku ko mu jël kon mu am suñu liggéey. moo tax ñëpp bëgg ko te ku ne xam ne maa ngi ma tàggatoo bi mënu ma a dama la gis saa bu drapeau chef de l'État amee muy a si changement. ba tax tey mënu ñàkk mooy ñun lu ñu am lii moo ñu ko may. ba oos. bëri drapeau chef de l'État jaar li traditionnel la. kon tey la may lii. waruñu ko fàtte war nañu koy war nañu ko dundal di ko suuxat ko suñu rax yi ne suñu ñu mel ni sax bokkal ah. ñu ngi ñëw ñoom dooy tay seen dooy saane xam nga ku lu ndëgee juum Chérif ak Xaana Fall yeneen champion yi tam yi ci ginnaaw di ñëw Serif Akhtar Fall moom la ñu demandé tey en direct général TV Eumeu Sène a ngi noonu di def interview. ci sa combat ak Bombardier tey ñuy xaar beneen combat ci diggante ak Tapha Tine ñu gis tey waa ah, lu jot yomb day jàll bu ngeen doom lay rek day jàll boole wartu tàkk day bëgg seen njëriñ te xam ne nii dañuy wane ne yi rek lambu sport la. bu boole woo sax ñu koy jaajëfal bu baax ñu koy jaajëfal bu baax. waaye si ñu boole dañuy bëri si saa bi waaw loolu tamit baax na. yar na du lenn ay